projet yi fiy am di dugal làkki réew mi ci école yi am na yu ci am ñu koy wax ay bilinguisme bi ci gën a récent mooy LPT te gën cee siiw boobu yàlla dogal na département Mbacké ci la bokkoon nga xamante ni xale yi bu ñuy jàng liir muy liifantu dañ koy tàmbalee ci seeni làkk bu dee Mbacké làkku wolof làkku alpulaar ak làkku séeréer nga xam ne xale bi ci lay tàmbalee jàng bi ba mën ci liir sukkandiku ci pour jàng liir ci ci ci ci ci yeneen làkk yi am beneen bu ko remplacer ñu koy wax reli muy renforcement de la lecture initiale pour tous boobu tamit muy xale yi CI ak CP ci wolof la ñuy jànge waaye du yam rek jàng liir mais yeneen matières yi sax normalement ci lañ ko war a jànge jàng ci nan la ñuy produire production d'écrit bind ay tex loolu muy benn étape kon jóge nañ ci LPT ñëw ci reli mais duñ yam foofu dafa am beneen projet boo xam loolu sax du projet parce que projet mooy loo xamante ne dafa am durée de vie mais option la mooy le MOEPS MOEPS reli day waajal MOEPS mooy le modèle harmonisé d'enseignement bilingue boobu moom matière yi ñuy jàng yépp wolof bi dafiy dugg wala pulaar bi wala séeréer te dañ dugal sax yeneen làkk joolaak yooyu yëpp fu nekk rek làkk wa fa not ñu fexe xale ya nekk foofa tàmbalee ci seen làkk yooyu di ci jànge lépp yéen ñii di ñu seetaan jaaree ko ci YouTube su ngeen bëggee jot suñu publication mën ngeen abonné Al Mouridiyyah TV te bu leen fàtte laal cloche